وإنه إذ أراد الله نشأتنا أبدا من نوره نورا بالعالمين وصليا يا إلهي وجزيا أبدا عنا محمدنا المختار في القدم بالله عسى من عليم من الشيطان اللعين الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله والصلاة والسلام على مبعوث أشرف الخلق سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد نور عبد الله وعلى علي وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين أيها المستمعون الكرام نحييكم جميعا أسكى تحية طيبة صالحة زكية <coughs> مني إليكم أنا أهلا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبكي جلت يتدي جنا بنيو سانتي يالا جلت سانغو سانغي نغني نيب دي زيار نيب دي نيو مبولم كي سيتان إميشن بي نيو لأي نيو دي wàcce sa wàccuwaay di nuyu ñi nga xamante ne ñoo nekk ci télé bi di ci liggéey ku mel ni Moustapha ku mel ni Mouhamed tabaarakallah moom mooy caméraman bi ku mel ni Ousseynou euh, bara galo ak euh, ñëpp daal fa tabaarakallah di nuyu ki nekk sama wet ni di oustaz Souleymane Cissé tabaarakallah di sama oustaz sama lépp waaye di nuyu suñu xalifa généraux yi mm-hmm. ñu dem nuyu suñu xalifa Seydil Abu Bakar si ibnu Muhammad Mansour moom ak ay rakam di ko wàcc wàccuwaayam di ko jox wàccuwaay bi koy bi suñu borom jox di nuyu suñu xalifa général de Serigne Mountakha Mbacké ak mbooleem xalifa généraux yëpp ñoo ngi nuyu bu baax baax baax di nuyu mbooleem kuy setan émission rek ñoo leen nuyu bu baax a baax Kifne TV bi képp ku koy seetaan rek ñoo leen nuyu di nuyu waa di nuyu waa di nuyu waa di nuyu sama waa dëkk fa tabarakallah di waa kër Yusufa Dini di nuyu xalifa ba di Serigne Assane Diagne di nuyu sama wayjur Serigne Issa Diagne sama soxna soxna Maretu di nuyu ñëpp di ziar ñëpp di bal ñëpp a xaq te di baal ñëpp a xaq di ñaan ñëpp ni ah wax fukki fan yu ngi bëgg te li ci digge ak li ci yonente bi wax yëpp yàlla nañ ko yàlla defal bi nabi na alayhi salaatu wasalaam ñoo ngi dalal suñu mbokk di oustaz Souleymane Cissé nekk borom xam-xam bu mag nekk borom xam-xam boo xamante ni wax dëgg yàlla ñëpp ñëpp naw nañ xam-xamam ah, mu yor daayira bi ñu naan fityatul imaani wal huda fii ci bun tabaarakallah yor ay fa tabaarakallah yor ay daayira yu bari yu muy waxtaan waaye daayiraam bi nga xamante ni moom mooy daayiraam xaqan mooy daayira fityatul imaani wal huda ñu profité waa daayira bi ñëpp waa fityatul imaani wal huda rawatina Seydina Alioune Badara Thiombane imam Cheikh Ahmad Tidiane ñoom Doudou Faye ñoom Kara ak soxna ya nek nekk di nuyu soxna Ndey Mbay ak soxna Abi tabarakallah di nuyu ñëpp mboolem ñi nga setan ñoo ngi émission bi ah kon oustaz dañ lay bàyyi kaddu gi su ko defee nga nuyoo su ko defee ñu doog a dugg su ko boo nuyoo nga wax ma sa programme li nga andi tey lan la su ko fa tabarakallah ñu dugu ci waxtaan bi insha allah rabbi bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين بسم الله الرحمن الرحيم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 Euh, mbokki àdduna lay wax mhm. ñu ngi yëkkati kàddu nuyoo kàddu ziyaara di ko jëmale ci mbooleem koo xam ne rek mu ngi bàyyi xel ci di rajo bi nga xam ne mooy Kifne TV Kifne TV mhm. ah di ñaan yàlla subhanahu wa taala mi nga xam ne mooy yëkkati yàlla na ko yàlla def mu mu bokk ci yi nga ah, télé yi nga xam ne ki nga xam ne tey su ma toogee fii moo tax ma toog di al oustaz Makhtar Dieng di ñaan subhanahu wa taala kaddu yi nga xam ne tamit ñu ngi fi bëgg a yëkkati mu nekk kaddu yoo xam ne kaddu yiw lay doon kaddu yoo xam ku ko dégg mën koy jariñoo waaye tamit maa ngi profité di ci di ziyaara sama wasila alxaaji Maodo ibnu alxaaji Abdul Ahad Dabakh ajadahu llahu wa nasra amiin amiin tabarakallahu di itam sama waa daayira comme na ko Oustaz waxee di daare boo xam ne suñu wayjur waaw suñu kilifa googu moo ñu ko jox mhm. mu nekk aaya boo xam ne surtout kaf fi mhm. di daa iratu fitmaani wal huda mhm. di ah, nuyu al rais seen Ali Badara Combaan wa raisatu soxna Habibatu Boy ah, tabaarakallahu di nuyu ñi nga xam ne itam ñooy jàppale ñoo ñi nga xam ne ñoo nekk ci bopp bi tabaarakallahu am nañ mbégte lool ci teewaay bi ñu teew fii fi seen waxtaane nag li nga xam ne mooy ñaruñu koor ndax comme ni ko mbokk mi waxee rek yi mhm. yu njëkk moom daanaka mi ngi waaj a tàggoo mhm. kon lépp luñ ci ñaan lépp luñ ci jaamu rek ah yàlla na ko yàlla nangu kon seen maxtaar mhm. waxtaan yi daal mi ngi jëm ci wàllu incha allahu rabbi wàllu koor ah mooy nuyu itam sama soxna soxna soxna Ndey Mbay tabarakallahu di ko ñaanal subhanahu wa taala ah, yaa yàlla sàmm ko te aar ko di nuyu sama waa dëkk waa sagata géet fa laa juddoo ah, tabaarakallaahu ñuy mu dëkk boo xam ne tam dëkk bu ma bëgg la mhm. ah, sama sama mobile sama yéene daal ah. mooy incha allah dëkk foofu incha rabbi kon naa loolu mooy kàddu yi incha allah suñu maxtaar mel ni tey oustaz li mu fa fas yéene andi moom mooy euh, ngëneelu koor mhm. mu mel ni koor nekk na loo xamante ni li ci yàlla wax am na ahkaam Amna na loo farata la amna na loo sunna la amna na loo mustahab la waaye nag fadail yi moom moom la oustaz Souleymane andi kon su ko defee moom si jëm ba mu wax ñu njëriñu koor lan la oustaz lan koor ak ngëneelu koor yi ngay yi ngay andi. Tabarakallah. Tabarakallah, macha allah. Ah, kon fa Tabarakallah ñu jël suñu kaddu googu rek ci kaddoom sos ci ah koor. dafa nekk loo xam ne subhaanahu wa taala lu mu digle la mhm. yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñëw feddali ko mhm. mu nekk du weer woo xam ne dafa am njariñ lool lool lool lool mhm. ci xeetu yonent bi alayhi salaatu wasalaam li tax mu am njariñ dañ cee wàcce kàddu yu am njariñ wàcce ko ci ko am njariñ ndax bu ne kaddu yu am njëriñ mooy kaddu subhanahu wa taala muy kaddu gu tedd wallaahi wallaahi wàcce ku ci ku tedd muy sallallahu alayhi wa sallam wa sallam muy ku tedd mhm. kon koor gi tax mu wuutee gi neen weer yi mhm. dafa nekk loo xam ne subhanahu wa taala da koo da koo li gaa yi mhm. ah, koo beral loxo ndax li ci nekk ci ay fadail li ci nekk ci ay fawaid amul benn weer boo xam ne nekk na ko ci ah koor nag buñ ko waxee asawma ci luxa من الإمساك معنا بنا إمساك نك موي أي إمساك عن الكلام موي نجاب سببو بنتي وح وح جو خم نداي تح يولب كورغا لين لين بعنتو كورغي فرعنا نياكوكو برأتي وعلى شرع نك وشرع الإمساك بنية تعبد عن الشهوات الأكل والشرب والجماع وما في حكمها والصائر مفترات من طلفة إلى غروب الشمس kon naka te kor daal. Ah. ci luxa. Mhm. mooy nga tee sa bopp bañ a wax wax joo xam ne day yàq yoolu koor gi. Mhm. ndax boo demee ci suratu Mariam. Mhm. subhanahu wa taala muy wax ak na Mariam. da kaa waxoon ni buñ la laajee sa doom ji fu mu ne neen inni nazartu. dama dama nisir ni. Ah, li rahmaani sawman. kon nakate koor ah. daal mm-hmm. bokk na ci kon tée sa làmmiñ mm-hmm. te bu nee tée sa làmmiñ nag mooy nga bañ caa wax loo xam ne luy yàq yoolu koor la mm-hmm. waa fekkee nag comme lii lii ñuy def nag pour wax loo xam dafay indi njariñu koor ak mbokk yu koy jariñoo kon day am solo lool seen waxtaan tabarakallah su bàyyi mu continuer ah, ci bismillah waaw mu ma ne nag koor googu ba tey subhanahu wa taala da cee indi benn aaya boo xam ne xëy na sax booy na ci noppi jullit yi mhm. comme ni ko suñu sëriñ ba Pam Malick mhm. daan ko waxe mhm. mu nekk aay boo xam ne booy na ci noppi juli yi mu yaa ayyuha allazina amanu kutiba alaykum siyaamu kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaquun waaye la am solo nag dëgg dëgg nag mooy jaxantaloo aaya ba muy euh, euh, laallakum tattaquun subhanahu wa taala di wax ne yéen ne yéen a bokk ci cadre ngëm yàlla faratal naa ci yéen lu ñuy wax woor weeru koor mhm. comme ni mu ko farataale ci ñi nga xam ne ñoo leen jiitu woon mhm. ah xëy na de bu ñu ko defee mhm. na ngeen am ak ragal yàlla waaye nag ñu bàyyi xel ne amaana suñu borom assa suñu borom ak laala suñu borom dafay wuuteeg amaana oustaz Maxtar wala oustaz Souleymane Cissé wala mbindeef daal ah, di doomu aadama kon daal li ñu ci déggee mooy kon ku war rek. am taqwallah am ragal yàlla ndax yàlla moom. bu ne xëy na rek mooy lu am ba noppi. muy benn aaya boobu. sallallahu alayhi wa sallam ne buniya al islaamu ala xamsin. shahadati an laa ilaha illa allah. wa anna muhammadan rasulullah. wa iqaami salaat. wa itaa zakat. wa sami ramadan. wa xajjil bayt. te boo xoolee koor ah. moom moo nekk ñeenteelu position ci wàllu l'islam mm. maanaam mm-hmm. ponk l'islam ah. mooy ñeenteelu ponk bi mm-hmm. ndax gannaaw baar gannaaw ñaari baatu seeda yi mm-hmm. tabarakallahu nga teg ci julli teg ci azaka moom mooy ñeenteelu position ci wàllu l'islam ah mu nekk nag ponk boo xam ne ah. tabarakallahu daa bari ay njëriñ lool lool lool lool ba subhanahu wa taala sax wax nañ ni نينكو فراتالي آه. تي وكان ذلك في يوم الاثنين من شهر شعبان في سنه ثانيه من الهجره كون تي بيسو التيني تي آه. ويرو شعبان تي آه. اتوم غداي تي تي نيار اتوم غداي ما تي لوكو يالا فراتالي موم ويرو كور وو كون دال كور نيك لو خامني تاريخ لا بو ام سولو تي جولي دي واي بونيس لا mu nekk loo xam ne tamit dañ cee wàcce alquranu karim subhanahu wa taala ne maanaam shahru ramadan alladi unzila fi alquran waaye nag hudan li naasi wa bayinatin min alhuda walfurqan kon nag fa man shahida minkum shahra falyasumhu mu nekk weer wo mu weer woo xam ne yàlla moo ci wàcce kaddum gu tedd gi di alquranul karim mu nekk nag di orienté doomu aadama yi ci njub di leen leeralal fi ñu war rek seen tànk di leen teqalee li nga xam ne mooy dëgg ak mooy nen kon koor daal nekk na kon fadail yoo xam ne tabarakallahu yonent wax na ci yu bari bokk na ca subhanahu wa taala ci xadisu qusi daa waxoon ni kullu amalin ibnu adama lahu ila sawm fa innahu li wa ana ajizu bihi xam nga dinaa faral di wax ni julli mën naa am ngistal waaw joxe azaka mën naa am ngisal mm-hmm. aji màkka mën naa am ngisal mm-hmm. waaye koor amul ngisal mm-hmm. laa riyaa a fiihi wallaahi wallaahi ndax su fekkente ji yow doomu aadama bi wala boog yow julit bi weer wu teru na nga war a woor nga dugg sa néeg nga te sa bunt nga xëcc sa rideau tim say ganaar wala tim say boisson naan ba sa lekk ba sa biir fees nga génn fomp ku la romb doo xam ndax ki war na wala wóorul subhanahu wa taala moo tax yàlla ni ah, ah kullu amalin mm-hmm. ibnu aadama mm-hmm. lahu ila sawmu mm-hmm. fa innahu li wallahi ndax koor daa nekk loo xam ne amul ngisal waaw ndax boo defee subhanahu wa taala te sa bët donte sax doomu aadama yi ne xamuñu ndax yow war nga wala wóoroo ah. waaye ki nga xam ne mooy subhanahu wa taala moo xam ne war nga wala moom nag moo ko xam bi ci des li tax koor gën a am njëriñ mooy weer wi benn xadis day wax ni képp koo xam ne am na kontante ci diggu maanaam ci dugg sëg weer wi mm-hmm. nga bëkki rek kontaan ci dong rek nga mm-hmm. kontaan ci mm-hmm. subhaanahu wa taala day arama maanaam seeram safara moo tax mu wuuteeg yeneen weer yi man faraxa bi duxuli ramadan xaramala ajal ala naar kon képp koo xam ne daal danga ngaa kontaan ci dikkug weer wi nga bëgg ci lool subhaanahu wa taala kat xuma ban yaram lay lakk de mais boobu du ci bokk est-ce daal li ma dégg daal su weer koor jotee mhm. bu ñu la nee weer bi feeñ na waaw nga bég ci mhm. bëgg bi nga ci bëgg rek nii mhm. weeru koor gi feeñ na rek kon suba damay woor sa yaram aram na safara jeex na ngoog na safara kon yàlla ab mbaaxam li mu yéene jullit yi moom mooy jullit ñëpp nañ dem aljana wallaahi waaw kon moom si jëm dafa mel ni moom bëggul lakk kenn déedéet bépp doomu aadama bu dugg safara yooyu yaa ko yóbbee sa bopp moo waral mu ni boo defee benn mhm. ma fay la fukk mhm. mu ni koor mhm. du ma ko jox ket maa koy fayal sama bopp moom nga wax si xadiisu sànga asaw mu lii waa naa bi yi yàlla ne man koor jëf yëpp mun naa ko def def intermédiaire waaye koor moom man ak jàmm bi direct waaye kon day fekk koor gi nga def ko ci sell ragal yàlla gëm yàlla gummat sëg yow nga doog a am fay bi nga xamante ni borom bi moo la koy jox ah, moo moo la koy jox direct su ma juumul daal daf mel ni loolu laa dégg ci euh, la kay ci waxtaan bi kon fa tabaarakallah mhm. bisimilah ba tey nga ñëw ci ba tey wàllu koor uh-huh. mu ne wasiyaamu junnatun mhm. fa ida kaana yowmu sawmi ahadukum mhm. fala yarfasu ولا يسخب فإن صابه أحد أو قاتله فيقول إني صائم والذي نفس محمد بيده لخلوه فم صائم أطيب عند الله من ريح المسك نتخ لصيام فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقى ربه آه، فرح بصومه البخاري الله أكبر من ne دون فكين دفور آه. كاتشورد defu leen loo xam ne fi kàccoor la mm-hmm. nee na koo xam ne sax daa ci moom sax di ko attaqué xeex sax wala wala xuloo mm-hmm. mun ka mun na dama woor mm-hmm. maa ngi koy waat ki nga xam ne tabarakallahu sama bakkan mi ngi ci loxom nee ne nee ne nee ne tabarakallahu bokk na ci tam maanaam xetug gémmiñ aji woor ah. moo gën a neex fa yàlla xetug misk lu tax mu ne ñeel na aji woor ji dana am ñaari kontaante ñaar yi hmm. bi ci njëkk mooy hmm. soo wooree ba ngoon nga dog hmm. da nga bëgg ñaareel bi mooy boo eggee subhanahu wa taala si sa borom wallahi da nga kontaan kon daal koor li muy tekki mooy daal waroo di xuloo waroo di xeex waroo di xasante waroo di ngañante ndax aji woor di ci kanam daan ci ñëw am na ci yoo xam ne tabarakallahu yu am solo la ci biir koor te dafa am njariñ te amul benn weer boo xam am na ko bu dul weeru koor SK waaw bi ci des ñu ne si benn xadis boo xam ne ña ngi ko jëlee ci an sahal ibnu saad mu jëlee ci sallallahu alayhi wa sallam wax ni sallallahu alayhi wa sallam inna fi ljannati baaban yuqaalu laha arriyaan يدخل منه السائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد muy lu am solo. Mm-hmm. nee na am na ajana joo xam ne buntu ba. Ah. mu ngi tudd Arrayaan. Mm-hmm. ña cay duggee. Ah. mooy ñi nga xam ne ñoo daan woor ñoo daan woor. Mm-hmm. te ñoom bu ñu duggee nag. kenn dootul dugg. sk ce que waaw buntu boobu. Ah. buñ ci jaaree ba ba xam ne ñëpp dugg nañ. ñu xenu buntu ba. kenn dootul dugg ci buntu boobu. est-ce que nga xam ne ñooy way woor ñi. est-ce kon woor am na solo. subhanallah am na am na solo lool kon li ma dégg mooy. Euh, li yàlla préparel jàmm bi benn buntu la boo am te buntu euh, li li buntu VIP. voilà ma ngoog te buntu boobu kenn du ci dugg lu dul ñi nga xamante ne ñoo woor woorkat rek ñooy dugg ci buntu buntu VIP ndax boo xoolee suñu suñu suñu nitu àdduna yi promoteurs yi ñoom bu ñu tëggee seen làmb dañ naan loose nangam xaw lan nangam xaw lan nangam fi gën seer daal mooy ñi nga xamante ne ñoo fay lu cher. Mm-hmm. ñoo fay toog. Mm-hmm. kon buntu bi nga xamante ne moom mooy bunt VIP yi mooy bunt bi nga xam moo gën a cher ca yàlla. Mm-hmm. mooy ñi nga xamante ne ñooy woor ñooy jaar ci buntu boobu. képp koo xam ne wooroo nekk. dañ lay jaarale ci beneen buntu. kon moom mooy baabu riyaan boobu. kon fa tabarak ba tey ci wàllu kor. Uh-huh. ni kor amee solo. Uh-huh. danoo jëlee ci ku ñuy wax Abdullah Ibnu Omar. mu jëlee ci salaasa mu wax ni. Uh-huh. qaala alsiyaamu walqur'aanu yashfaaani lil abdi yawma alqiyaama yëpp ak alqur'aan dañuy rammu jàmbi yawma alqiyaama ndax koor dana yow sama borom sa jàmm bii kat maa ko aaye woon lekk bëccëg ak bànneexu bëccëg kon nag romul ma sa jàmm bi est-ce que alquran naa may tamit sa jàmm bi kat maa ko tere woon na nelaw guddi mu def xiyaamu layli kon nak ramul ma sa sa sa bi yàlla ne kon nak ramuna len leen est-ce que xaar fa yasfa fa yasfaani ramu naa leen ahmad moo solo hadith bi ahmed waaw ahmed mo solo hadith bi ma sha allah pour wal kor nag wa edi dafa bari mo nga nee leen ñoo bari waye te bu ñëwee tamit ci benen hadith bu ñuy wax abi saïd mu ne moo tax mu jëlee sa ki ñuy wax mooy salaa sallam mu ne. maa min abdin. yasuumu yawman. fi sabilillahi. taala. illa baada allahu bi dalika yawm. wajuhu ani naari. sabciina sabciina xarifan. est-ce que. dégg nga de. mu ne amul benn jaam boo xam ne war na benn bis. mu def ko ci fi sabilillah. lu dul ba yàlla soril na jëmm jooja. safara lu tolloog juróom-ñaar fukki nawet. est waaw kon ku war fanweeri fan nag kon <laughs> yàlla yàlla yàlla yàlla dimbali ba sek weeru koor bu jot rek mu may ñu wér guñ ko mën a defee la mel ni euh, wax nga alquran mm-hmm. wax koor mm-hmm. te alquran yàlla wàcc ko ci biir koor su ma déggee inna alqurana fajri kaana mashhudan mu nekk benn seede mm-hmm. kon man saama ramadaan imaanan waxtisaaban xufir loo ma taxadam min zambika wa ma taxar waaye nag boo deeyee tamit mm-hmm. nga dem ëllëg sa aljana mm-hmm. yashfi'aani léegi nag mu nekk loo xam ne mashhud lay doon ci yow ëllëg mm-hmm. ngir ñoom ñaar ñëpp ñu taxaw nekk sa sa barrage nekk sa avance nekk nekk sa avocat bi nga xamante ni ñoom ñoo lay lay sa diggante jarna sa borom mm-hmm. kon lii kay jarna jarna jar na daw jarna na daw ba dee comme soo wooree bu ëllëgee mu nekk avocat ci yow mm-hmm. boo soo jàngee alxuraan alxuraan bi bu ëllëgee tamit moom mooy taxaw seede la mm-hmm. ne yàlla kii kat doon na nangam doon na nangam kon ramul ma ko kon léegi yaa ngi woor yaa ngi julli yaa ngi jàng kon yow nga def ko ne ci imaanan waxti saa ba nag ak taxwallaa kon yow mun nañ jàpp ne yow moom nitu aljana nga tabarakallah ah, waaw biir sax. Mhm. moo tax ba tey ci wàllu xadis boobu sax. Mhm. beneen xadis boo xam ne dafay firndeel. bi nu wax léegi. Mhm. muy anu Amar. ibnu Ubsata. mu ne qaala sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni. man saama yawman fi sabilillah. bu'idat minhu naar. masiratu mi'ata am. dégg nga de. nee na képp koo xam ne war na benn bis. mu def ko rek fi sabilillahi. yàlla dana ko sori safara. Mhm. lu tolloog diiru muy dox téeméeri at. Mhm. téeméeri at bari na du oustaz. trop sax <laughs> man saama yawman. fi sabilillahi. ah bu'idat. minhu annaar. masirata mi'ata am. ku ñuy wax at-Tabarani. waaw moo solo kon daal kon woor. dafa bokk ci li nga xam ne ñaari doomu aadama la. xam nga dafa am lu ñuy wax asiyaamu. maanaam fawaa'id yi. li sa ah, asiyaamu ruxiya ak sa ah, asiyaamu ijtimaiya mm-hmm. maanaam koor mm-hmm. day def ñaar ci doomu aadama mm-hmm. ci wàllu ruuxam ak ci wàllu dajale ay am ay maanaam ay mbokkam bu ci wàllu ruuxam nag day aju wàllu taqwa comme subhana taala ni mu jeexale aaya bi waaw العالم تتقوى لعلكم تتقوى تروح لم بقتم وتقوى الله روح لو موكي دوندال واو رجاء رجاء موكي دوندال يلا اها بودي بودي تي اجتماع نك والو جابلانتي والو جوكلنت تي رافيت وقل آه، اقول لك احسان يوجو داي ام سولو تي ويرو كور موتاخ ينتو دان واخني آه. موم صاح كو تابي وون لا تي ويرو كور دي ديمل اي جام موتاخ ني بوجو صراخ بي گنتي صراخ صاح مو صراخ بو خامني تي ويرو كور لا est-ce que waaw sarax bi gën ci sarax yi. Mhm. mooy bi mooy mooy bi nga xam ne. Ah. donc ko def ci weeru koor. est-ce que ndax la mhm. nga am ci ay fadail. Mhm. mu mënoo ko am ci yeneen weer yi. kon sëñ Maxtaar. a ah, koor daa am na solo. wallaahi wallaahi ndax yaakaar naa ne ah, dox téeméeri at. diir bi dong lu mu sore ak li mu yàggee. ci benn fan dong. waaw kon ñi nga xam ne ñoom dañuy woor fanweeri fan. waaw te la riyaa. fa laa yarfus Mm-hmm. duñ ci boole ay yëfi caaxaan mm-hmm. kon ñooñu kon tabarakallah am nañ yaakaar ci macha allah am nañ yaakaar ci ñoom kon daal koor ah, tabarakallahu weeru barkeel la mm-hmm. weeru yërmande la weeru njëggal yi nga xadis bi may bëgg a jàng ah. ñu jëlee ko ci ku ñuy wax abi hurayrata dafa wax ni ah. sang bi nee ne ataakum shahru ramadan shahrun mubarakun وانك فرض الله عليكم صيامه تفتح فيه ابواب السماء وتغلق فيه ابواب الجحيم وتغلق فيه مرة الشياطين زينغا لله فيه لتخ من آه. ليلة خير من ألف شهر كون من حرم خيرها فقد حرم النساء اسكي نانا اها مانام رمضان اها يالا مولنكو انديل mu nekk weeru woo xam ne weeru barkel la waaye nag yàlla farataal ku ci yéen pour mm-hmm. ngeen woor ko mm-hmm. subhaanahu wa taala ci weeru koor wi ci lay ubbee buntu asamaan yi est que ci lay tëjee buntu safara yi bu ne buntu asamaan nag mooy buntu yi nga xam ne fi lay jaar mooy buntu ajana yi mm-hmm. ci lay tëjee buntu safara yi ci lay chaîne seytaane ba nga xam ne ah. du la mën a yàq ci dara mu ne ci weeru koor moom rek moo am guddi gi gi nga xam ne ah. moo gën junni junni weer ben goudi rek ben goudi gi moy goudi laylatul qadr laylatul qadr motax tax ne lillahi fihi laylatul khair min alf shahr est wa kon na ku ko ormal deug degg ormal nga li mata ormal te laylatul qadr naam borom xam-xam yi nee ne benn guddi googu boo ko ci chartam yi mu parce que day nek 83 ans yu tek ay weer léegi nag mhm. guddi googu mu gën junni weer mhm. junni weer biñ ko xayma mu nekk quatre-vingt-trois ans yu teg ay weer mhm. te ñun ñi kisu dund quatre-vingt-trois ans te ñaata at la ñu woor bëriwul de on <laughs> ko bëriwul de ñaata at la ñu woor kon weeru koor ngëneel lii ci nekk nekk bari na ضرب صح إن أنزلناه في ليلة القدر في ليلة القدر والله وما أدراك ما ليلة القدر والله ليلة القدر خير من ألف شهر نكو ديغو تنزل الملائكة وروه فيها غير بإذن ربهم من كل أمر غير من كل أمر سلام والله هي قط مطلع الفجر والله كل ليلة القدر نيتي نلو نلو يغني لي خيو دي دي يغني كو موس اه استاذ ما شاء الله يهنكو عندي <laughs> بسم الله Ah. léegi nga ñëw ci beneen xadis boo xam ne. Hmm. gis nga koor koor daal bonus la ci ci ci julli di bonus. bonus bonus. xam hmm. nga li gars yi wax boo jëndee. waaw ah. boo jëndee 500 am 1000 francs. fi mu toll nii keroog pour cent la am. <laughs> waaw jax na ngoog. Ah. <laughs> gis nga xadis bi. Hmm. dafa ne Ida Halla. Halalu Ramadan. ساحل عرشه والكرسي والملائكة وما دونهم يقولون طوبى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه بما عند الله تعالى لهم من الكرامة واستغفرت لهم الشمس والقمر والكواكب والطيور في الهواء والسمك في الماء وكل ذي روح على وجه الأرض في الليل والنهار إلا الشياطين عليهم لعنة فإذا أصبحوا لا يترك الله تعالى أحدا منهم إلا يغفر له ويقول الله تعالى للملائكة اجعلوا صلاتكم وتسبيحكم في رمضان لأمة محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم نانا ويرو كور بوترو نانا عرش عرش مونيك خاجو الكرسي kursi ak malaaka yi ak أي ñoo xam لنيو ay mbindeef lañu lu ñuy wax texe ñeel na ci li nga xam ne ma nga jóge ma ci ay karama loolu doyatul foofu de mu ne sa maanaam jant bi dafay jéggalul xeetu sallallahu alayhi wa sallam weer wi hmm. dafay jéggalul xeetu sallallahu alayhi wa sallam wal kawaakibu bi di noonu hmm. ñanaaw yi noonu hmm. jën ci ndox noonu lépp loo xam ne borom ruux la nekk ci kaw suuf muy gudd muy bëccëg ba mu des seytaane danay maanaam jéggalul xeer sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam bu ñu xëyee nag mm-hmm. duñ bàyyi loolu de duñ bàyyi subhanahu wa taala ne leen mm-hmm. yéen daa xam na lu may dëggal mooy seen julli yi yéen malaaka yi seen julli yi julli waaw ak seen tasbihaat yi jël ne jox ko sama gaa yooyu macha allah ah <laughs> waaw tabaarakallah moo tax mu ne آه، ويقول الله تعالى للملائكة اجعلوا صلاتكم وتسبيحكم في رمضان محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم موتاخ tax jul moo tax koor mag ñi dañ ko بوي woon bu dee ñëw buy buy tàggoo buy tàggoo. maanaam dañu xaw a am du leen metti ndax. wallaahi wallaahi li ñu am ci weer yi. maanaam mu ñu ko am ci yeneen weer yi. wallaahi wallaahi waaw moo tax mag ñi fonkoon koor lool. bi bi des sa sëñ Maxtaar. xadis bi nga xam ne mi ngi jëlee ci Anas ibnu Malik. Anas ibnu Malik waaw waaw mu nettali xadis mu ne. أنه قال من حضر مجال مجلس العلم في رمضان كتب الله تعالى له بكل قدم عبادة سنة اسكي ويكون معه تحت العرش يقول لي تحت العرش وما دام على الجماعة في رمضان أعطاه الله تعالى بكل ركعة مدينة تملأ من نعم الله تعالى إيش قد ينقى وحدي نانا دقوا ما قد أساس دفني كيف كو خمنا ياني توب ci jotaayu xam-xam maanaam ngay si alquran wala boo suñu jotaay bi mhm. nga toog fi ci ramadan mhm. subhaanahu wa taala gis nga mhm. jéego boo jéego dafay nekk jàmm at ah. maanaam bu nga jógee sa kër di ñëw waaw jéego boo jéego rek maanaam subhaanahu wa taala da koy def mu nekk jàmm at ci yow te it wa yakunu maahu taxta al arsi moom ngay dëkkaale ëllëg aras muy subhaanahu wa taala est mu ne képp ko xam nga saxoo ci nekk ci mbooloo ci maanaam ci ramadan maanaam xanaa kon nga nekk ci jàkka ji ca mbooloo ma mhm. nee na taala dana la jox rakka bu nekk mhm. day toll maanaam day xaw a toll am réew madina benn rakka benn bu nekk rek mhm. xayma bi ah. day toll am réew dal nag xewli subhanahu taala mu ne nag wa man birra walidayhi fi ramadana yanaalu nadrullahi taala bi rahmati wa ana kafiluhu fi janna dégg nga de jeexagul de mhm. mu ne wa ma min amra'atin tatlubu ridan zawjaha mhm. fi ramadana illa walaha mhm. thawaabu maryam wa asiya est-ce que <laughs> dégg nga wax ji koo xam ne uh-huh. yaa ngi am yërmande ci sa waajur uh-huh. yaa ngi def mbaax ak njekk ci sa waajur ci weeru koor nee na xuma kan ëllëg du gis yàlla de waaye yow foo gi subhanahu wa taala ci yërmandeem est te yàlla nee ne man maa man ak yow sax ñoo bokk dëkk àjjana far <laughs> dégg nga waaw. <laughs> mu ne tam. Uh-huh. amul benn soxna boo xam ne. waaw uh-huh. mi ngi sàkku ngërëmal borom këram. Seydina Mariam ku ne xam na yo yo uh, nu mu teddee woon. Seydina Mariam. waaw wa mm-hmm. Asiyatu bintu Mazahim. Mm-hmm. ak Asiya. Mm-hmm. nee na ñaar ñii. dañ am ci tiyaaba. ba yàlla sax tabarakallah bàyyi leen xel. nee na képp koo xam ne yaa ngi toppatoo sa borom kër ni mu waree. tabarakallah da nga am yool boobu. wa maryama ibnata imran allati ahsanat farjaha wa nafaxna fi min ruhina wa saddaxat bi kalimati rabbiha <laughs> kon fa tabarakallah mu mel ni mm-hmm. eh, li wax ci koor mag ñi nañ ko daan bégee mm-hmm. ak ñun tey jii mm-hmm. bu ñu naan weeru koor gi jot na kenn ku nekk di commencé génne yoo xamante ni mu mel ni ay sabotage la ci weeru koor gi lu mel ni ay ay série yi daw di wane ne koor gi nii la di sobati diine ji ñii di lekk mhm. ñii di naan mhm. ñii di soboote mhm. nga gis koo xam ne dafay tëdd jël glace teg ko ci bopp bi euh, wana ni nit daal dafa dafa dafa tumurank ci koor gi wana ni rek daal koor gi dafa metti te koor nekk jaamukaay yàlla goo xamante ne te yonent bi dafa ne su mu tasixoo woor leen rek ngeen wér bu ngeen wóoree wér te mag ñi daañ ko doon yàkkam di Serigne Babacar Sy bindin na ci bindin na ci ay bayit keneen noonu keneen noonu xasida bi ma tiim nii benn góor gu tudd Abdoulaye mhm. euh, benn benn borom xam bu tudd Abdullah ibnu alhaaji Camara mhm. moom moo bindi mhm. mu ni fa marhaban bika ya ramadanu zil karami gis saadati ya li muxtanimi kon fa mar bika ya ramadan mu ni dalal ak yow weeru koor zil karami weeru nga xam da weeru koor gi nga xam dafa tedd mu ni chahru saadat mooy mm-hmm. weeru texe mm-hmm. weeru texe mm-hmm. kon tuu yaa tuuba li mu ki nga xamante ne moom dafa màng jëm ci weeru koor pour woor nit ñi di daw jublu ci weeru koor pour woor tamit nga dem def say say say théâtre say série di ko teg ci weeru koor nga di ko saboote moo tax ma dégg sëñ Habib nee na képp ku seetaan série yooyu képp ku ko seetaan mhm. def nga bàkkaar mhm. te sa koor yàlla mhm. sax du ko nangu ndax heure biñ koy teg heure ñaan la heure bi nga koy teg heure ñaan la mm-hmm. dañoo bëgg heure boobu bu jotee mm-hmm. fekk yow nga nekk sa jukki alquran di jàng mm-hmm. wala nga nekk sa kurus di def laa ilaha illallah nga xamante fi ngay dogee day fekk fekk waxtu bi jot na fekk yow fees nga dal lekk leer nga jël sa tendrement bu ñu ne dog jot nga ne allahumma laka sumtu wa bika amatu wa ala risika axtartu faxfir li ma qaddamtu wa ma axartu bismillah nga dog léegi heure boobu heure nga war a dogee ñaan ba pare nga di ko dog nga <laughs> di ko dogee ab reetaan ndax fi muy jeexee tout le temps da ngay ree te gis nga li nga wax sànq uh-huh. kon ñun mm-hmm. euh, loolu war nañ ci amat njàngat suñu mm-hmm. biir li waral maanaam tey jii jamono tey jii mm-hmm. lan moo waral mag ñi dañ daan yàkkamti weer koor jot di ci bëgg ñun ñii bu weer koor jotee ñun ñuy mer wallaahi wallaahi boobu bëgg nañ tamit comme ni nga ko waxee ak nit ki mag ñi kiyee su ko defee tamit macha allah mooy li nga wax nii kon war nañu xoolaat lan la lu xew lan la waaw li xew mooy si motar loolu mooy ñàkk xam suñ diine rek ndax mhm. boo xamul si diine moom waaw ah. doo taxaw wallahi loolu dong la mhm. waaye ku xam li ci yiw mhm. heure ñaan nga taal sa loxo ñaan te yàlla mu ne adduun astajib lakum yaakaar naa ne am na heure boo xam ne. waaw ah. du du heure mhm. du heure caaxaan. wallaahi wallaahi weeru koor. Mhm. dañ te war a profité ñun ñëpp. Mhm. ndax jàmm bi. du dangi ah. toon subhanahu wa taala. te nagam. dañoo wax ne nawmu saa'imi ibadatun. wa sumtuhu tasbihun. wa zanbuhu maxfurun. wa doxa mustajaabun. kon daa war a nagam yow nga nelaw waxaat ko oustaz nawmun nawmu saaimi ibadatun hmm. wa sumtuhu tasbihun wa zanbuhu maghfurun wa doaha mustajabun kon nit ki soo wooree waaw nga noppi rek noppi rek noppi googu sàbbal yàlla la jeex boo nelawee jaamu yàlla la jeex na boo defee bàkkaar boo tubee yàlla jégal la ko jégal la ko boo ñaanee yàlla nangu ko kon kon mbokk yi est-ce que duñu profité <laughs> ci weeru koor gi dana war de <laughs> te li gën war mooy si nga xadis bi ma bëgg wax دفني إذا كان أول ليلة من رمضان يقول الله تبارك وتعالى من ذا الذي يحبنا فنحبه ومن ذا الذي يطلبنا فنطلبه ومن ذا الذي يستغفر لنا فنغفر له بحرمة رمضان بحرمة رمضان دينغد فيأمر الله تبارك وتعالى الكرام الكاتبين في شهر رمضان est-ce que bi an yaktubu lahum alxasanat wala yaktubu alayhim alsayiat wa yamxu llahu taala weeru koor bu teroo bis njëkk ci weeru koor yàlla dana ana kan moo ñu sopp ñu sopp ko ana kan moo ñu sàkku ñu sàkku ko ana kan moo ñu jégalu ñu jégal ko ci barke weeru Ramadan daa digal malaaka yi nga xam ne ñooy karaamul kaatibiin mhm. ki ci ndeyjoor ki ci càmmooñ mhm. mu naa ah, attention de bu leen bindoo sama gaay yooyu lu dul aw yiw mhm. mbooleem ñaawteef yoo xam ne am nañ ko sax far leen ko est-ce que maanaam gom leen ko gom leen ko <laughs> maanaam baatu baatu magfira waaw moom mooy moom mooy balanko jaax na mu ngo balanko la bëggoon wax sax comme lii boo ko kiyeer nga jël balan koy ko jaax na bi dootul feeñe kon loolu mooy mooy baatu maghfira mooy maghfira yàlla ba moo tax yàlla waxoon ne istaghfir rabbakum summa tubu ilayhi uh-huh. inna allaha kaana ghafur rahim ghafur rahim waaw <laughs> est wax dëgg uh-huh. moo tax koor daal uh-huh. am solo lool ci doomu aadama mm-hmm. dafa am solo est-ce que xam nga su mu tesoo nga jàng léegi mm-hmm. lu mat a bàyyi xel la ñaari baat la waaye yu am solo la. Mhm. suumu tasixu. suumu tasixu. waaw mhm. xam nga doomu aadama. Ah. bakkan. Mhm. balaa mën a yaru rek daa mën a daa wóor. bakkan. bakkan. am na ñoo xam ne tey jii weeru teroo. daanaka la seen sidit dee. bari na. <laughs> waaw. weeru teroo. la seen dee. ndax xumbaay yeeg tëpp tëpp yeeg yuuxu yeeg. waaw yooyu yëpp moom arrêté na. Mhm. xanaa kay ñu dog. wallaahi bu dogee am daanaka du yàgg. du yàgg de. yàgg waaw. waaw leneen xaju ci waaye ko wax la mhm. li am njëriñ mooy. Mhm. day may wér yaram. xam nga dañ wax ne booy lekk lekkal. loo xam ne. du la gaañ. donte sax lu dagan la. boo ëppalee rek. yaa ngi yaa ngi bakkaaru. waaw oustaz foofu li ngay jàngale nii ak li xew tey mm. balaa ñoo ndogu mm. <laughs> taabul bi day fees dell <laughs> lu si nekk dafay nekk uh-huh. suñu bokk xal pulaar yi mm. banaana yi clémentine <laughs> eh, yi pomme yi kafe gi fii meew mi fii si xew bi fii ah mm-hmm. mburu yi moom lu si nekk moo fay nekk mm-hmm. léegi benn biir mm-hmm. ci benn diggante nga bëgg cee def loo xamante ne da ak li yonent bi ne suumu tasixu est ce que loolu ñaar yooyu ñaar yooyu est ce que bokk na déedéet duñ bokk de ah. xam nga li tax mooy ah. noy yi daa am place waaw ah. naan daa am place mhm. lekk daa am place mhm. yow boo jëlee fi nga nga jël ndox def jël def ah moo ñu si bari ma buñ ndogo bakkan def la la <laughs> ñu moo tax mbir moo gis rek. maanaam nga xam ko. day am solo. Mhm. moo tax yent bi lekkam daawul bari. Mhm. naanam daawul bari. Mhm. nga xam ne ci la gën a mën am cawarte. ak jaamu yàlla xanaa xamoo ne bu fekkee ne si biir daa fees. waaw yi nga xam ne ci ah, mooy yent bi daan naafi laa. doo ko mën. wallahi doo ko mën. bu dee bu dee taxawaay bi doo ko mën. bu dee sëg bi doo ko mën. waaye fekkee ne da ngaa ñëm tuuti rek. ci ci warkala ci ndox mi mhm. baa ci café gi baa ci muru mi mhm. bu ne nga jox mu wàllam mhm. mën ngaa naaf lu junni rakka du doo ko yëg wallahi wallahi wallahi lu leer waaw fekkee ne da ngaa tim rek comme ni nga waxee sànq rek tabarakallah ñu lal macha allah palaati ah, ci ci taabal bi bépp xeeti ñoom wu ne ma nga ca bu ne sa xel bag caa bag caa laal ko daanaka sax daanaka yow sa koor moom daanaka ah. daxaw dafa takk suuf moom kay ñu si bëri moom moom nañ ma <laughs> nañ ma baal rek dafa doy waar dinañ wut corne bœuf dinañ wut six cent dinañ wut danañ wut danañ lu ne léegi benn mburu mm-hmm. am na ñoo xam tamit liibar mburu la ñuy wut mm-hmm. léegi xoolal oustaz liibar mburu nga bëgg a lekk naan kaas mm-hmm. café bëgg a lekk ceeb bëgg a bëgg a julli léegi digg na fi ngay tëddee ak fi ngay jógee xëdd dafa doy waar te ñu si bëri tamit duñu xëdd te yonent bi nee na na ngeen xëdd ndax këdd barke moo nga ca mhm. kon nekk da nga war a lekk lu yem mhm. ndax nga mën a teel a tëdd mhm. mën a teel a naafila teel a tëdd ngir nga mën a jëkk xëdd waaye ñu si bët duñu xëdd donte ñetti tàndarma sax ngay jël lekk ko naan ndox te yonent bi nee na même ma barke moo ci nekk. wallaahi wallaahi te ce que yëg nga ñetti tàndarma de boo ko lekkee naan ndox. Mm-hmm. journée boobu boobu yëpp mën nga def sa activité doo. Mm-hmm. doo xiif mm-hmm. waaye nga gis koo xamante ni moom si jom boom jaaykatu càkkiir bi nga lax bi jaaykatu yëngal bi jaaykatu jaaykatu nga bëgg jënd lépp ci benn benn waxtu afa nga bëgg def sa biir balaa une heure deux heures day fekk nga laaj nga sonn te loolu yëpp euh, tamit yaa ngi koy jàngale yaa ngi koy jàngale ci ci sa sa thème bi mhm. tabarakallah te kon nit ñi tamit war nañ si mën a bàyyi xel mhm. xel bu baax a mhm. baax a baax ni soo wooree lii nga war a def lekk bi nii la war a demee nii ak nii ak nii su fekkee bëgg nga wér waaye benn waxtu nga bëgg see def fukki lekk ak juróom ah, loolu taxul nga wér kon tabarakallah ah, bi des mooy xam nga yàlla sax daa waxoon ne wa taawanu wa birri wa taqwa gis nga xadis bi may wax nii dafa ne wa man qada حاجة أخيه المسلم في رمضان قد الله تعالى له ألف حاجة يوم القيامة ومن قضى حاجة أخيه المسلم في رمضان قد الله تعالى له ألف حاجة يوم القيامة كون تاي سوما أن فك لي في nga taxaw nga wara dem euro pass ma yor 1000 francs joxlo ko nga pass bu elegé yalla fajal ma sama haja wallahi nakh fofa hmm hmm waxuma june aja de waye sax danaka ñaari junne aajo sax dana fa am. wallaahi wallaahi wallaahi. waaw. ndax dama aadama ci boppam. yàlla daal daal lu ko programmeel. yemal xiyaam. est-ce que. waaw. xam nga alxuraan dafa xaw doy waar. léeg-léeg nga jàng aay boo xam ne boo ko boo ko jàngee da ngay bég. wallaahi wallaahi wallaahi. am aay boo xam ne boo ko jàngee sa xel xaw a xaw a lox tuuti. ah iza zukiratillaha wajilat xulubuhum. ma ngoog wa iza tubla alayhim zaadun imanan wa ala rabbihim yatawakkaluun waaw ah, kay <laughs> xamu yàlla fu mu dégg doomu aadama na bu defee uh-huh. nangam uh-huh. dinaa ko def nangam uh-huh. boo xoolee ci ëpp moo tax yàlla ku bëri yërmande la wallahi wallahi la waxoon ne inna rahmati wasa kulla shay'in wallahi mooy dëgg na boo xoolee ay yi nga xam ne subhanahu wa taala mi ngi ciy taral doomu aadama moo ëpp yu muy xupp doomu aadama wallahi wallahi wallahi wallahi <laughs> boo ko seetloo ndax wa yubashiru muminina allazina ya'maluna salihati anna lahum ajran hasana ma ngoog tabarakallah sina fii abadan waaw kay dira baasu sadida voilà mi ngi noonu kon loolu moo am solo lool waaye lépp nag ramadan moo ko waral macha allah waaw ndax yi nga xam ne ulama ñu ngi koy génne waru xam-xam yi ci jamono yu ñu toll ci weeru koor rek la gars yi di génne wallahi moo tax moo tax koor gën a am solo waaw waaw xam nga fii sa mi ngi naan sax من أسرج في مسجد من مساجد الله تعالى في رمضان كان له نور في قبره وكتب له ثواب مسلين لتخ في ذلك المسجد وسلت عليه الملائكة واستغفرت له حملة العرش ما دام ذلك في المسجد اسكي نانا كيف كو خامن رانان انا اكون ليك يا سكر نجي جام جاكجا وا تي جاك سبحانه وتعالى ديغا دي ci jàkkay yàlla la wax de. jàkkay yàlla waxoo jàkka diw de. Mm-hmm. dégg nga wax gis nga. Mm-hmm. waxoo jàkka yi diw. dafa ne jàkka yàlla la wax. Mm-hmm. min masajidillahi taala. min masajidillahi ndax wa anna al masajida lillah. jeex na. fala tadu maa llahi ahada. loolu nag yaa ngi koy defee ci weeru koor. mu ne xuma kan de. mooy am lu mu bàmmeel. waaye bokkoo ca. sa bàmmeel day leer naññ comme lampe bi nu mu leeree ci ñun. mooy gën a leer sa lampe bi. est ce que yaa nañu ko yàlla defal waay. amiin te it Mm-hmm. yàlla dañ la bindal yoolu képp koo xam ne bokk ngeen jàkk ji dana la bindal yoolu képp koo xam ne mm-hmm. bokk ngeen mm-hmm. ah. ji kon man ak yow ba ñu bokkee ci jàkk ji waaw bu yàlla bindalee bindal ma jeex yoolu boo am uh-huh. xam nga lu tax loolu mooy uh-huh. ah am na ñoo xam ne su duggee ci jàkka ña ngay naafile waaw ah, mu am ñoo xam ne ña ngay yaa ngi dégg am ñoo xam ne ña ngay yoolu yooyu. Mhm. lay wax. est da nga ca am yow donte waxoo hmm. <laughs> donte jànguloo. est-ce que mhm. bu ne malaaka yi nag julli leen sama sama jàmm bi. Mhm. julli ci sama jàmm bi waaw. wa sullat alayhi malaika. yéen malaaka yi sama jàmm boobu nekk ci jàkka ji. waaw dee leen julli ci moom ba kër muy gën a jàkka ji. est-ce que ngeen jégalu ko ay bakkaaram. di ko jégalu yàlla subhanahu wa yi nga xam ne. waaw malaaka yooyu mooy ñi nga xam ne ñoo ñoo yore arash lay wax. Hmm. malaaka yara aras waaw ñi yenu aras waaw ñoom lay digal ñu ñu jéggalul ki nga xam ne rañaan jóge këram ah. dem ci njàkk ci weeru koor moo tax ni man asraja Ba man asraja ah. fi masjidi ah. min masajidillahi taala fi ramadan booy rañaan da ngay dem aras jax na léegi nag moom mu ni léegi léegi yow yow dem jàkk bi nga dem jàkk ji mooy sa rañaan jeex na moo yi nga xam ne ñooy yenu aras ñoom tamit ñuy julli ci yow jeex na <laughs> tabarakallah tabarakallah fika sa sa teb bi moom macha allah <laughs> dégg nga coordination bi. du bëri na ay fadail ay mhm. njëriñ lool. Mhm. xam naa. ci wàllu naafila yi. xadis rot na ci. Mhm. ko léegi ne. ku wóor weeru koor. naafile weeru koor. nga def ko ne ixtisaaban. ak gëm yàlla. maanaam gëm yàlla ak ak ak ak ak ixtisaaban. bisimilah kon léegi oustaz. Euh, mel ni naafile yi. waaw su nga def ci benn benn développement. Mhm. ndax liñ dese si waxtu bareetul. Mhm. fi mu toll nii presque 47 jot na. Mhm. te xam naa ni yëfu yëfu xalpulaar ma war nga ko defee. <laughs> léegi su ko defee nga nga faram fàcceel ñu wàllu naafila ak naafila boo koy def. Euh, lii la ci yàlla dig ëllëg lan la. ak naafila ba xam ndax faratal wala sunna la. ndax am na ñu bari ñoo xamante dañu jàpp ni buñ ko defewul ca jàkka ja rek <laughs> war ñu ko defee ci kër ga ah, te loolu it tamit war nañ koo xam bu baax a baax su ko defee euh, mm-hmm. ñu mel ni mm-hmm. yaa ngi woon ci mm-hmm. ci yaa ngi woon maanaam ci point boobu ci naafile yi su ko defee ñu bàyyi la rek nga gën ko yaatal gën ko développé ci biir dix minutes yi su ko defee yeneen yi ci des ñu jëm cee kii bi incha allah waaw wàllu naafile yi ki nga xam ne moom la yàlla yónni ci ñun sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam dafa ne man qaama ramadaana imaana waxti saaban képp koo xam ne mi nga taxawal naafile weeru koor mu def ko gëm yàlla ak sàkku yiw yàlla na ko jéggal mboolem ay bakkaaram naafile nag daa nekk loo xam ne waaw mas naa mas naa la ñaar ñaar la nekkul farata nag boo xam ne tabarakallahu farata la ci doomu aadama déedéet dafa nekk loo xam ne rek Manam sunna la boo xam ne wala nga ne ngëneel la boo xam ne ala kulli xaalin yiwu hmm. aji jamu ji yàlla ji hmm. te xadis rot na sax mu ne képp koo xam ne da ngaa def ñaari rakka avant tisbar hmm. nga def ñaari rakka après tisbar nga def na ci waxtu julli juróom bala nga jul def ñaari rakka sa ko est-ce que waaw Mhm. nu mu toll ci duusu géej rek. waaw ah. lu lay jéggal la. est-ce que. kon naafile tamit bokk na ah. ci ëllëg. Mhm. mën naa fatu ab buntu. Mhm. moom naafile. waaw ah. ak mën a fatu buntu ëllëg. waaw. waaw ndax euh, léeg-léeg suñu farata yi muy farata julli yi. waaw ah léeg-léeg ñu rëcc baa ci farata. waaye naafile yi mën na koo defar. ndax yàlla soxorul nag yàlla soxorul <laughs> de <laughs> kon li ma si déggee mooy ah, ah, ah. naafile waruñu ko def ci weeru koor kese déedéet déedéet maanaam lu bari mm-hmm, mm-hmm. maanaam dalay mottalil ay point mm-hmm. comme tey jii bu examen jotee li gars yi di naan xaw ma dem na dem dem na deuxième tour ñu ko naan oral xaw ma léegi da ngay mottali say point kon naafile moom mooy loolu waaw moo tax euh, borom xam-xam neen nit ki su fekkente ni bëgg nga ag ci fa sori ci yàlla mu ni del bari ay nafile guddii ma guddii de ko foog wallahi man talabal ula sahira layali te fiñ ko tek moy li yàlla di nan ni tata jafa tatajaaba junubu ani madaaji yadcuuna xaafan wa tamaan wa mimma razana min fuhun ak be ak bele kaanu xalilan min alleyli maa yaxja'uuna kon su ma juumul mel ni naafile fa lañ ko tënkee wallaahi wallaahi su ma juumul daal dafa mel ni naafile fa la naafile fa lañ ko tënkee ci baat yooyu mooy mhm. yaa ayyuha mudassir xum mhm. fa anzir xum fa anzir ak yaa ayyuha muzammil xummi layla illa xalilan xam nga mudassir mooy mhm. mooy mi sangu jógal waaw mudassir mooy jógal waale muzammil mooy yow sangu jógal هم الليل إلى حليلة نصف أو أنقص من خليلة بمدستر خم فنزير وربك فكبر كون فتبارك إن شاء الله نباير ندفلو إن شاء الله ربي وخمنا في ما في جاخلي سما كادو ديكو لاي بيري كيف كوي أب جوليت ناخ وور با نغون amatu loolu xiif ak mar mhm. kooku musiba la musiba la de wax te yéen sa salam ne nekk am am na ñoo xam ne daanu woor su daañu woor ah, ah, fajar ba jant bi so mm-hmm. amu ci loolu xif ak mar mm-hmm. bokk na ci yi nga xam ne tey jii mm-hmm. lu ma yàgg a seetlu nag fu weeru koor teroo magasin boo dem lido yi moo fay ëpp wallahi wallahi wallahi magasin boo dem ña nga uh-huh. tegale lido yi lido yi ca kaw a kaw wallahi te daa xaram de نكات حرامي مرياز حرام من لعب بنرد الشير فكأنما صبغ يده بلحم الخنزير مباحد من لعب نعم. بنرد فقد عصى الله ورسوله اسكي كيف كيف كم يعني كات مرياز ولا نجاي يوتي ولا نجاي ليدو ملني ني يانغ جي سولو خو ديكو سوخ تي ديروتو مام خو سبحان الله يالنا سي يال مسال مسبلا musiba la laa <laughs> ilaha illallah kon ñi koy def te war nañ ko déglu waaw yow ma ne waaw ah. Sénégal mën na ne weeru koor bu teroo hmm. des sol ma la wax birig boo boo dem moo fa ëpp est-ce que nekkul ne ñàkk xam moo tax ñu koy def mën naa mën naa nekk nag ndax boo xoolee télé yi ñi ciy wax nañ ñëpp lu jëm si loolu duñ ko wax lu ñu war a wax la nag ci wàllu carte wàllu mariage wàllu lido ba ci ba ci babi jeex na ma ngoog ba ci ba bi. ba ba tey ba tey carte juróom dugal xëcc. ba tey carte taxaw kii taxaw kii taxaw fi muy mujj ay xee. ba tey carte la rek. léegi teg juróom teg juróom. naa xam ma benn benn bul juróom. <laughs> wala léegi léegi romb na foofu bul cent wala bul deux cent la léegi. léegi nag ngeen bëgg def bul cent wala bul deux cent. léegi fi muy mujj mooy xee. nga gis ko xam day yor deux mille francs amaana daf ko sàcc yaan wala mu sàcc ko ci baayam wala wala mu nekk paasam boo xam ne daf ko waroon yóbbu école mu dem ci bari ba taxawul ñu ñu ñu gañe ko ba xaalis ba set wécc du nangoo ñëw kër gi te loolu moo fi bari léegi te nit ñi foog nit ñi di ci wax su ko defee ña koy def ñu mun ko déglu ñu xam ni ah ndaka man lii maa koy def waaye baaxul man jàpp naa ne ñi nga xam te ñoo nekk ci télé ñu ko doon wax na nit ñi danañ xam ne lii baaxul mhm. su ko defee ñoom ñu mun koo bàyyi mhm. waaye man dama jàpp ne ñàkk xam moo tax ñoom ñu koy def man man bokk mhm. dama jàpp ne xamuñu moo tax ñoom ñu koy def te borom tele ñi nga xam ne ñoo nekk ci télé oustaz yi war nañ see wax bu baax a baax comme yoo si jëmb ni nga ko waxee nii bu ko ñëpp waxee woon noonu mu gën a yaatu su ko defee nit ñi dañoo xam ne ah kon lii kat baaxul bu boobaa ñoom buñ ko dégloo ba pare de ko ñoom la ak yàlla waaw ma ngoog tabarakallah kon lii oustaz yéen nga ko wax mm-hmm. yéen ko wax te nekk dang lii moom nañu fexe moom mu yaatu <laughs> nañu fexe mu yaatu comme que weeru koor gi lépp njéggal la lépp kii nit ki waroo cee def def ba déedéet déedéet déedéet waaw te maa ngi dégg borom mi xam-xam bi di naan nit soo wooree ba mm-hmm. weeru koor go jeex mm-hmm. te yow nga seet nga xool sa bopp ni carrément sa jikko dara sa dara dara soppeekuwul yow sa yaa jàppe woon da ngaa woor waaye waaye moom amoo ci dara uh-huh. tabarakallah sa koor ga amoo ci dara uh-huh. kon yooyu tamit oustaz il tamit ngeen di ko yaatal uh-huh. ngeen di ko wax ci daayira yi ci ci eh, ni ko gàmmu yeeg ci conférence yeeg yëpp ngeen di ko fa muy gën di yaatu insha allah rabbi tabarakallah ah. waaw loolu daal bokk na xam daal naa ko laay biiree ab julit ndax koor taxu ñuy wax ndax ruux gi mën a am ah, na ci cër Mm-hmm. te cër bu may ragal yàlla subhanahu wa taala mm-hmm. te lépp loo xam ne luy mooy yàlla rek ah. maanaam rox du ko war a moytu mm-hmm. bi si des mooy waaw ah. soo mu saalixiina ñoom de ah. daaw ñu fen ci weeru koor daaw ñu jëw daaw ñu rambaaj daaw ñu jaxasante daaw ñu kiñaan wax nga lu jëfe nag oustaz <laughs> te juróom yi nag képp ko akuy julit mhm. wax war nga ko amee bu baax a baax bari na xëy na temps bi comme ni ko mbokk mi rek mhm. nañ ci indi yu bari ah. du tabarakallah yoon allah rabbi incha allah ñu gën koo yow da ñëwaat yow <laughs> sama ah. sama lépp nga doo fi géej waaw te lii dafa war a yaatu comme day dugg ci eh, internet mhm. monde bi ñëpp ñëpp koy seetaan dafa war di yaatu seen classe gi dañ leen di soxla ñoom ñuy génne xam-xam yi su ko defee ñu mën a jariñ nit ñi mhm. te loolu mooy yoon fa lañ mhm. toll léegi mhm. ndax dañu toll jamono boo xam te ni foog li ma waxoon ñu koy siiwal ndax laa yuhibullahu jahra bi su'i min al-hawli ila ma zu'ir léegi yàlla bëggul nit ki di nit ki di feeñal mbon te mbon gi bari na mbon gi fës na mhm. mbon gi siiw na mhm. te ne kon li war mooy mhm. ñuy feeñal mbaax te na yéen ustaas yi tamit ñu leen di woo lu mel ni nga xamante ni ñëpp koy seetaan ngeen di ci wax di feeñal feeñal mbaax di feeñal njub di wax nit ñi ni lii boo ko defee lii moo la ci fekk lii boo ko defee njëriñ di lii la lii boo ko defee yàlla fay la lii lii boo ko defee a ah, nga am ci mertu yàlla su ko defee ki xamul woon xam ki xamul woon xam mhm. te ki xamoon tamit jàngaat ci nafaraat ci mhm. te loolu tamit da ci am solo mhm. su ko defee nga euh, sa kaddu nga nga tàggatoo waaw tàggatoo bi da xanaa gannaaw bi ma leen bu baax waaye nag damaa fàtte bi may tàmbali euh, ki nga xam ne gannaaw bàyyi mooma ndax mooy suñu taw papa muy Abdou Aziz Cissé Abdou Cissé mi ngi nekk Italie waaw ah euh, jëla sa temps nga nuyu leen ñoom ñëpp ndax tabaarakallaahu ba nekkee daara moo daañu jàppale ci yu bari. Mm-hmm. a ah, bi góor gi dëddoo yi tamit. waaw ah. ci ay loxoom la nekk ba léegi it. Mm-hmm. maanaam ah, ñu ngi ci ay loxoom ba tey. Mm-hmm. a de ko ñaan subhanahu wa taala mu nekk. yal na yàlla fi ko tawfiix. yàlla sàmm ay njabootam. amiin amiin amiin ah li mu bëgg li mu yéene ci njabootam it. yàlla yàlla mottali ko ko. amiin a amiin ah sant nañ ko bu baax ndax moo ñu jàppale bañ bañ mën a toog fii di wax. ci yu mel nii. wallahi wallahi wallahi di sant tamit Ibrahim ibrahima ndiaye waaw waaw ndax moom sama xarit la sama wëlëre la ndax tabarakallahu lépp lu may def rek naa ci waxtaan ak moom avant may ñëw fii wax waxtaan naa ci tabarakallahu mu masha allah jox ma kaddu na ma yooyu am ndax da nga war di wax Ah, maa ngi koy ñaanal bu baax moom tamit yàlla yàlla aar ko te sàmm ko amiin amiin amiin xam naa sax maa ko daan ubbi tafsir bi tey xam naa ne tey moom a ah. su ma tuut naa tardé ndax maa ko daan ubbil waaw ah. six heures daan tàmbale di six heures waaw est-ce que waaw xam naa ne xale daan ko ubbil incha allah rabbi ah di ko ñaanal nag na na mooy tamit nekk ku baax nag wax dëgg yàlla ku mm. ma ku ma yëg nag wallahi wallahi waaw ndax lépp Ibrahima Ndiaye waaw Ibrahima Ndiaye macha allah di sët moom Socé Ndiaye mm-hmm. tabarakallah di borom xam-xam mm-hmm. baax lool sawar ci lool mm-hmm. te na nga koo joxe nag ma mm-hmm. dëgg yàlla mm-hmm. ah di la santam yow sëñ Maxtaar alhamdulilah ndax tabarakallahu ah yow mën a yow benn lañu duñ ñaar wallahi wallahi wallahi ndax yàgg noonu lool mm-hmm. te li gaa naan lu yàgg dëgg la ah, te te tamit diina moo ñu boole wallahi wallahi su ma nee diina tarixa génnu ci waaw Mm-hmm. su ma nee tariqa mm-hmm. daayira génn ci wallaahi wallaahi wallaahi eh, yaakaar naa na loolu moo ñu boole mm-hmm. ah di sant tam sama waay daayira comme ni nga ko waxee léegi ci commencement bi di daayira boo xam ne tabaarakallaahu ah, ah sëñ Maodo moo ñu ko jox ah xëy na sama ñàkk woyof tabaarakallaahu ak sama ñàkk solo tax ma jiite leen waaye wax dëgg yàlla ñu baax ñoo fa ne ñu am xam-xam di ci permettre sax di nuyu Cheikh Ahmed Tidiane Ba. Mhm. di borom xam-xam macha allah tabaraka di mhm. jàmbaar. Mhm. Ah, tabarakallahu di nuyu sana Alioune Badara Combaan. ak waa daara bi yëpp daal. so ko da nekk bun yëpp. jaar naa leen tabarakallahu di am ci yéen mbégte. ah di ñaan itam seen seen seen bi. yàlla na yàlla def mu nekk makaan bu gën a kawe ci makaan yi. amiin amiin ah, yàlla def fi xéewal. amiin amiin def fi sutura. ci tabarakallahu diina ji. ba invité oustaz ñuy waxtaan mm-hmm. yéen yàlla mottali leen loolu amiin amiin ah di ñaan subhanahu wa lépp luñ ci wax lépp mm-hmm. luñ fi wax mm-hmm. na nekk loo xam ne lu jariñ la amiin waaw lépp lu ñu fi wax daal na nekk loo xam ne lu luy jariñ la amiin amiin ah, xëy na doomu adama nag moo matut mhm. te itam miinuñu nag lii mhm. bu leet tey sax bu leet mhm. waaw maa ngi soog a jàkkaarloo ko ma nii di wax <laughs> bu leet <laughs> ah. waaye nag li li ah. gaa di wax rek loo nekkul ndongam moom moo nekk sëriñam incha allah tabarakallah incha bi waaye daal ñu ngi rafetlu daa jotaay bu baax a baax incha allah bu baax di ziar muxtaar bu baax di ko ñaanal ya subhanahu wa taala yàlla gën a fee yàggal sama ko aar ko kon daal waa axiru daawaana alhamdulilah rabil alamin kon fa tabarakallah mbokk yi seen émission tey moo ngi noonu xam naa ne émission bi xubbu taaxaa la waaye tey jii dañ cee waxtaan wàllu koor te boo nee xubbu taaxaa tamit sallallahu alayhi wa sallam te yonent bi képp ku ko sopp rek li la war mooy lépp lu mu fi digle nga def ko lépp lu mu tere nga bàyyi wa ma ataakum rasulu fa xuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu te beneen bi encore képp ku sopp yonent bi foog nga reysu لحد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه موم لا سونو مام جو باخ جوجو وليس نفع على حب بلا عمل وتابعا سنه المختار تختنم واي عفا فوفو تاعه هادي محبته كستباع الذي ياتي من العموم ولها علامات حال ان اعظم استمال سنه من جمله الامم كون فتبارك الله Ah, émission baa yi noonu xubbu mm-hmm. taaxa lañ ko tuddee mm-hmm. waaye ñu jaaree fa nuyu ñëpp waat ñëpp mm-hmm. comme nañ ko waxee rek oustaz Souleymane Cissé ñoo ngi dellu tamit di la sant di la gërëm di la jaajëfal di la nuyu di nuyu waa buun ñëpp oustaz Cheikh Ahmed Tidiane Ba di borom xam-xam mm-hmm. moom soo fa nekkul moo fay nekk ñu mm-hmm. ngi koy nuyu suñu wëlër suñu xarit la mm-hmm. Seydina Aline Badara fa tabaraka ndax yéen ñu woyof ngeen su ma ñëwee ci daayira bi da ngeen di jël lépp ngeen jox ma ngeen euh, doxalal kon fa tabaraka loolu seen baax la la Seydina Aline di président bi ñoom Duudu Fay ñëpp daa fa la di nuyu sa soxna soxna Ndey Mbay di nuyu soxna Abi fa tabaraka ñoom ay jàmbaar lañu ci daayira bi di nuyu euh, maire maire Gaye Sarr fa tabaraka la moom mooy yaayu daayira fa tabaraka di nuyu Alxaaji Ibrahima Ndiaye moomu mm-hmm. Mm-hmm. Euh, di seetu maam Soosa Ndiaye di mm-hmm. borom xam-xam yor internat foofu ca buun fa tabarakallah di nuyu waa rakam jooju ji ngi ñaan Demba Ndiaye fa tabarakallah di nuyu ñëpp oustaz Omar Cissé mi ci jamee xudru saalihin wa saalihat di nuyu Haaji Malle ñoom tabarakallah di nuyu ñëpp fa di dem géej waaye di nuyu sama tante mère Seyne bu Fall tabarakal di nuyu suñu oustaz euh, oustaz euh, Pap Serigne Pap Faye tabarakal ak ay njabootam yëpp ñoom Pap Ousmane Faye sama xarit Sidi Mbaye di dem Tëngëj di nuyu sama waa waa daayre sama waa kër ñoom mère Tarawale mm. ñoom Lamine ñoom Jibi mm. tabarakallah ñoom Adja Tarawale mère Hadi Fall tabarakallah di nuyu ñëpp euh, Seydina Aline Wade mm. Haji Mamour Diop Ndiankou Diop Sadio Touré tabarakallah ñoo ngi leen di nuyu ñëpp di dem sama dëkk encore ni ma ko waxee woon sànq rek mënta ñàkk ma nuyu sama kilifa Serigne Issa Diène euh, sama kilifa Zeynabou Mbengue sama soxna soxna Mareetu suñu xalifa tabarakallah Serigne Assane Diène di nuy sama sopp yi fa nekk sama xarit fa tabarakallah bay su fa jenn nuyu nañ ko bu mm. mu mag ak mu ndaw fa tabarakallah di nuyu sama baay ya fa nekk ñëpp nuy naa leen mm. sama maam ya fa nekk ñëpp nuyu na sama nijaay ñëpp nuyu naa leen mm. di nuyu ñëpp di ziyaar ñëpp bàyyi ñu kenn bàyyi ñu kenn ah, ñu ñoo ngi jaajëfal ñëpp tabarakallah ñëpp daal àdduna monde bu yëpp nuyu nañ leen di leen sant di leen gërëm bàcc jeng nuyu nañ la président laay dabax nuyu nañ la garambay nuyu nañ la nuyu nañ ñëpp di ziyaar ñëpp wa ma zalika السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بنين جدي ان شاء الله بنين ايفيد ان شاء الله واي استاذ يابل ني يوم موم دوفي گيج بو شبا يالا فان يوني رك دين في نيوات بو شبا يالا ان شاء الله ربي نيغي جاجفال نيب السلام عليكم ورحمه الله وان اذ اراد الله نشاتنا ابدا من نوره نور النبي بالعالمين وصليا يا الهي واجزيا ابدا على محمد عدد المختار في القدم